wax waaye nag loolu lépp dama koy dajale boole ko si wax joo xam ne maanaam ñu koy wax xamuñu fan la ñuy teg seen tànk te xamuñu lan la ñuy wax yéen a kaay gi nee na maître Abdoulaye Tine daan jox ab leçon de droit ki nga xam ne mooy Ibrahima Madior Fall mi nga xam ne moo doon wax ne Sénégal maanaam réew la moo xamante ni mu souverain la yéen a kaay gi nee na moom maître Abdoulaye na daan nay wax jalgati gi nga xam ne état bu Sénégal jalgati na ko ak ak ak yelleefu doomu aadama ak démocratie bi nga xam ne daan na koy naxasal saax saaxe ko ci lu jëm ci wàllum parrainage bi ni nga xam ne moom la ñu ko doxalee ak lu soxal wàllum viol secret de vote gi nga xam ne am na ci yéenekaay gi de la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal jamono ji bi ñoo ngi waajal ab coalition boo xam ne a am ne ñooy opposition bi moom la ñu dëgmal maanaam ñoo ngi waajal ab coalition boo xam ne bu dëgër këcc yéenekaay gi di ji ñoo ngi booloo ngir nag jàkkaarloo ak Macky Sall Sall defante ak moom ci élection locale yi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmal yéene kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Mokhtar Sourang mi nga xam ne ci Front Résistance Nationale ci la bokk nee na manifestation yi nga xam ne amoon na ci réew mi amoon na ay risque coup d'état yéene kaay gi di Vox Populi ñu fekk fa Abdoulaye Bathily nee na Sénégal soo moytuwule maanaam ci kaaw la jëm ci laas yéene kaay moom Abdoulaye Bathily daan na ñaawlu bu baax ba baax moo tax appliqué wu ñu assises nationales gi de Le Soleil xëy di ñu ci bi nga xam ne dañu ko fay amal jëm ci wàllum relance économique que coronavirus bi nga xamante ni naxasal na économie bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci déndu Afrique ak lu jëm ci wàllum dette bi nga xamante ne war nañu ko baal maanaam réewu Afrique yi loolu lépp nañu ko waxtaane ca sommet ba yéene kaay gi di direct news daan nañ xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi nee am na rapport bu génn boo xam ne fukki réew ak juróom-benn yi nga xamante ni def nañu ay jéego yu rëy ci jëm ci wàllum kenn ku nekk jot ci wàllum njàngale njàngale mi maanaam Sénégal bokku ca yéene gi di Les Échos xëy di ñu xibaar ñu am na nag ay règlement yu bees jëm ci wàllum oto yi ci ñi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci gouvernement bi njiitu réew mi di Macky Sall nee na ku am lu ëpp benn oto nan ko delloo te sant na ñi nga xam ne ñooy waa gendarmerie ñi nga xam ne liggéey nañ ci nguur gi ba pare liggéey tuñu ci nguur gi maanaam ba pare ngarda joo oto yi nga xamante ni moom la ñu leen joxoon maanaam véhicule de fonction yi nee na gendarmerie oto yooyu yëpp nañu ko wër daal di koy nangoo yéen gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu li nga xam ne moo xew diggante Palestine ak Israël ba léegi nii Sénégal waxu ci loo xamante ni maanaam luñ mën a jàpp la Macky Sall dafay layaam layaama la jàppaliwul ñi nga xam ne ñooy waa Palestine ouvertement ana lan moo ko waral journal bi ku ëmb sangal ëmb kersa la ko waral bokk na ci Israël gi nga xamante ni mooy gérer lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu matériel espionnage bu Sénégal loolee moo tax maanaam Macky Sall génnul ouvertement wax ne Palestine lay jàppale yéen kaay gi di direct news xëy dañu xibaar naan ñu mbir moomee nag yoon ba ñëpp daal di koy xama lan moo fi changé ba Macky la mbir mi bañ cee wax lu leer yéene kaay gi ne nag ki nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor ay jamonoom sax doon na jàppale ñi nga xam na ñooy waa Palestine yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba des Palestine jamono ji ñoo ngi gën di wéet ci li nga xamante ni maanaam moo xew seen diggante ak la ndax conseil de sécurité bi ak waa Union européenne ak réew yu bari yoo xamante ne ay réewu arab lañu ba léegi nii waxuñu ci mbir mi lan yéene kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu journaliste bi di Pam Ndiaye bu Walfadjri te koy toppee jëm ci wàllum escroquerie ak yàq deru justice bi tey jii la ñu koy àtte journal bi nee na moom Pam Ndiaye nag ci PV yi wax na ci lu doy waar a doy waar yéen a kaay gi di Source A na ki nga xam ne mooy commissaire Bara Sankaré defal na ab réquisitoire boo xam ne bu doy waar ki nga xam ne mooy Pam Ndiaye nee nag mesure yëpp war nañu koo jël ngir nag teg ko ay daan yoo xam ne méngoo na nag ak giraawale njombe gi nga xam ne journaliste bi di Pam Ndiaye daan na koy def bi nga xam ne moo ko porte plainte di ko tuumal ñoom ñaar dañu doon bëggante dikkee deuxième femme ci la xale bu jigéen bi na commencé say si boppam di ko nag laaj xaalis bi nga xam ne maanaam moom la ko abaloon yéen a kaay na Pam Ndiaye demoon na sax bay wax ne moom da doon deal ak ki nga xam ne mooy procureur ak juge deuxième cabinet bi yéen a de sat xëy dañu xibaar naan ñu Ligue 1 championnat bu France jamono ji ba léegi Paris saint mën na koo jël ndax benn point rek la ko li rawee yéen a kaay na Atlético benn match moo